dal leen ak jàmm ami site internet réew mi tv li gën a fës ci bopp xabar yi nag dañ koy doo rek communiqué bi nga xamante ne rek njabootu Seck dal nañ koy fësal ci génnuk àddina seen yaay seen mag seen seen lépp di tey Fatou Diouf Diaga Seck ñoom nag la ñu di xam ne ginnaaw bu ñu nuyoo ba noppi rek nee na ngay sant yàlla bu baax a baax ndax lépp rek la xew ci moom la jógee ko waaye nag ñëpp rek ci moom la ñuy delluwaat ñoom njaboot gi nag ña ngay sàkku nag nee nañ nag bi dinañu ko amal maanaam daal kii di Ndeye Fatou Diouf eh, Diaga Seck dinañu ko jébbal boromam ni ki suba ci àllarba ji yemoo ko ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru janvier eh, fi nga xamante rek moom mooy ca grand cimetière bu Yoff bu 17h jotee ba teggal fanweeri minute nee na seen jaal nag ña ngi koy nangoo foofa ca seen kër maanaam ca këru familial ba ci même jour bi la ñu daal di xam ne nag ci boobulee dëj nee na ñi ki suba ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru janvier bi eh, ci lay lépp rek di yem amul saraxi ñett fan amul saraxi juróom-ñetti fan amul sax saraxi ñeent fukki fan ndax nag loolu yëpp nag kii di jàgg rek moom moo ko sàkkoo woon noonu nee na nag ñu ngi leen di jaajëfal bu baax eh, ci jàppandal gi di ñaan rek kenn ku ci nekk rek boo jullee nga ñaanal ko eh, Fatia ak Ixlaas njabootu Seck nag ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci boobu lee communiqué ba tey bu ñu jógee ko foofu nag dañuy àddu rek wutali kàddu yi nga xamante ne kii di directeur Cheikh Tidiane Dièye daal dina ko yëkkati mu nekk nag ay leeral nee na nag eh, gis nañ ñenn ci journaux yi rek ñu ngi commencé di publier ay information que ne moom ci jëm boppam rek da amal réunion ak ñii di Lacoste moom nag la mu daal di xam ne rek moo di ne nag musul def boobulee mbir waaye nag mbir mu nu mel daal dara warewu ko rek lu dul bañ bi nga xamante ne rek na mën nañ koo bañ candidature am ci élection présidentielle yu dama ci atum 2024 wala rek mu daal di li ko intéressé daal mu nekkoon compte rendu boo xamante ne rek doon na ko def ginnaaw bu ñu ko waxee ne da ngay ànd ak kii di président kii di da ànd ak kii di Ousmane Sonko ci mbir mu mu nu mel nag nee na nag eh, ci la jëlee ab décision ba tolluwaay nee na nag candidature yi nga xamante ne rek ñoom ñoo nekk ci kuréel gii di LACOS amul ci kenn koo xamante ne rek sekk nag ñoom ab réunion moom ci jëm boppam nag nee na candidat la comme yeneen eh, candidat yi eh, kon nag candidat bu ci nekk rek am nga droit nag maintenir sa liste boo xamante ne rek moom lañ daal di publier ca kanamu conseil constitutionnel niki ñaar fukki fan ci weeru janvier bi ñu nekk moom nag la mu daal di xam ne dina nag déposé na ca direction général des élections mi nga xamante ne rek moom moo ñeel bépp loi ak modèle boo xamante ne rek ab liste la waaye nag li nga xamante ne rek moom moo ca am mooy di am na plénipotentiaire boo xamante rek daal dina ko cay nemmeeku ci département yeek arrondissement yi nee na nag moom ci jëmmi boppam nag naam yàlla may na ko xam-xam waaye nag moom Ousmane Sonko jàmm rek lañ mës a sekk ndax nag lu leen boole ci loolu nag dañoo bokk rek ab idéologie moom nag la mu daal di xamle ba tey moom docteur Cheikh Tidiane Dieye moo dina nag nit ki 2002 moo nekkoon premier activité yi xamante ne rek doon na ko def ci espace citoyen ak civique jamono ji nag maintenance bi nga xamante ne rek daal dina koy def ci boobule action benn objectif képp dong rek la am mu nekk nag sàmm intérêt général askan wi waaye décision bi nga xamante ne rek moom ci munti doon rek moom nee na nag dina ko fësal euh, boppam ndax moom ci jëmmi boppam daal Sénégal moo ko ñor euh, te fépp daal Sénégal lay xalaat waaye nag mu daal ci yokk benn bëgg-bëgg dong la am rek lu dul kii di Amadou Ba nekk candidat Benno Bokk Yaakaar daal di lajj ci élection présidentielle ma ci atum 2024 bu ko defee rek ndam li daal di wuy ji pôle patriotique souverainiste ak panafricain bi nga xamante ne rek moom mooy euh, waaye nag fi nga xamante ne foofu la daal bokk ne na nag ma ngay sàkku rek ci presse bi euh, bés niki tey rek bu ñu waxati nag ci moom rek nañ ko daal di jege ndax am na équipe boo xamante ne rek moom moo yor wàllum communication ak information yoo xamante ne rek ñeel na ko kaddu yi nag ki ko fësal di docteur euh, Cheikh Tidiane euh, Dieye jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification ngir amaat yeneen info